Pour la première fois, le Sénégal s'est doté d'un budget vert. li njëkkeelu yoon ci biir réew bu Sénégal ñuy am budget vert budget boobu dina tax ba ñu gën a taxawal suñu financement Sénégal boo ko seetloo am na ay obligation ESG loo xamante ni faw ñu tënku ci bu ko defee lépp lu jëm ci wàllum financement ci atum 2024 ñu mën a xool naka la ñuy def ba gestion ba daal di koy ñu mën a xool naka la ñuy def ba gën koo ñongal boo ko seetloo ak budget bi nga xamante ne Sénégal gën na koo am ren ji dem nañu ba juróom-ñaari junni milliards ci koppar euh, loolee lu am solo la ma bëggoon nag daal di jaar ci poroxndal boobee rafetlu taxawaay bi nga xamante ne plateforme nationale bu ñeel wàllum dialogue ak gouvernance foncière ci biir réewu Sénégal am nañu ko initiative bi lu baax la loo xamante ne dafa jot ngir ñu koy daal di def gunge ko bu ko defee jigéen ñi ci seen bopp ñu gis bu ko defee ñëpp mën cee gis seen bopp rawatina jigéen yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci milieu rural yi. notamment féminine et rurale.